mais après nag gis nga loolu bi ko Ousmane Sonko waxee ma ne leen li mu wax nii lu mu gëm la ndax gëm na ko ba tey su ko gëmee ba tey roi de changement bi mu incarné mooy vent changement bi départ nii jëm ci yeeyu radical bi gars yi jàpp nit ñi ñoom ñooy opposant vrai ñooy opposant au pouvoir bi mhm. boobu tey moom bu bëggee ne ne daf dañu am plan dëggantaan mu war a jàll plan pdf bi ñu amoon ci élection législative Déthié Fall plan Déthié Fall bi moo leen ci mën a génn mhm. euh, jërëjëf muy ay yu ama am solo mais Ismaïla mu ngi may teg mais bëggoon naa la en deux minutes deux minutes ñu wax ci cas maître Moussa Diop buñ ci mënee boole les fonds du Qatar aussi en deux minutes. ñaari cas la xam nga kaaw maître Moussa Diop keroog dama. Ismaïla may ñu deux minutes. dama wax ci benn plateau bërki démb. Mhm. ñu bari dañu wax ni man bi mu yoree dem ndikk nii may gis changement yi dama ci d' accord ak moom mais bi ñu waxee dama leen maître Moussa Diop moom moo takk bu pendre boppam moo xaru parce que moom moo xool timing bu mu bëgg a wax boo xam ni. Euh, je ne sais pas lan la ci cherche lan la ci soxla mu génn daal di attaquer ne transparence bonne gouvernance lii am na mais maître Moussa Diop ce qu'il cherchait aujourd'hui moo doon ñu def ko parce que pour man c'est un homme intelligent c'est un avocat barreau de Paris problème ñi am France problème yépp parce que maître Moussa Diop du fi leader boo xam ne ni créé na fi parti yor na fi appareil yor na fi lu tax ñuy kii mais maître Moussa bi mu génnee wax dama ne noon maître Moussa daanu dafa dafa xam ni suñu journalistes yi dañu médiocre suñu agence de communication lañu yor non non non yi jeexul raxasuñu presse bi je de dire ça parce que élection yi ñu jëm yi ñoo ko mën a jaay loolu moom sama combat la maa yor maa yor général de la république amee général république man noonu lay nekkee général république mm-hmm. parce que journalisme du ay gala du ay joxe ay trophée du joxe mooy xeex le métier et le mm-hmm. défendre maître Moussa Diop waaw maître Moussa Diop nag mm-hmm. li nga xam ne ni moom la def ma ne xaru la parce que maître Moussa Diop gis nañu ni. bi ñu ko waree bi ñu ko waree jëlee dem dikk. ci troisième mandat la génn wax. le lendemain ñu wàccee ko am na ñu ne. yëgoon na ni day quitter foofu. mu anticiper. deuxièmement ci bii ñu nekk nii ci élection présidentielle yi. yëkkati na kàddu mu des ay jours ñu war a nekk ci affaire parrainage mu woote programme jékki-jékki wax wax bi mais maître musa Diop ci boppam crédibilité am ci wax ci affaire gestion wala wax ci affaire deniers publics moom du woon amu ko woon parce que moom ci wàllu boppam moo fi attaqué. moom la fi Barthélémy Diaz attaqué. de de de dañuy détournement dañuy public sur le siège de l'APR. man Moussa Diop génn yóbbu ko ci yoon. Sonko bi mu ko yóbbee ci yoon. Hmm. Ousmane Sonko woo leen protocole de salon. moom laa lay wax ni suñu suñu suñu homme politique yi parfois ñi ñi leen bëgg nag seen yoon nekku si parce que ñi nee naa la ay mécontent bu ñuy xeex ñoom soxla wuñu noo mel. Hmm. mais dañuy faj seen mer rek parce que homme politique yi faj mer dañuy ànd ak fajkatu mer yi aussi. léegi nag bi ñu toogee mu ne leen ñun ñoo far. nañ teg dossier yi ci suuf si maître Moussa Diop c'était un homme d'éthique un homme transparent un homme de bonne gouvernance ñu accuser la ni ni nga jaayee Dakar dem dikk suuf bi dafa nébu la nga période boobu boo demoon woon ba jusqu'au bout bu aujourd'hui ngay génneewaat benn dossier naan état du Sénégal dafa am leneen lu muy def ak leneen lu mu di def si laa ne leen maître Moussa Diop bu dee ci kàllu bonne gouvernance taxu ko woon jóg benn bi xaru politique la doon def voilà suñu société civile bi ak suñu ONG jox ko de fausses informations parce que dañu am ay société civile gis naa ci sama benn xarit Demba Seydi bu publier ce que vous payez euh, ñoo bokk CASIS ñoom Demba Seydi ñoo ko créé mais dañoo làqatu yàq defaraat texte yi dàq ñu si ñun parce que CASIS mu ngi vers de recevoir ay fonds ñun xeexkatu dëgg yi parce que li ma leen daan reproché ci kii bi ñu génnee ñu ci amul assemblée générale amul fenn fu ñu woote même Demba Seydi boobu mooy milité F24 mooy milité fële mooy milité aussi tamit ci jege candidature ñoom Ousmane Sonko. même Demba Seydi boobu laa gis mooy wër ci plateau yi ni ñoom ñooy société civile bi ñooy publier ce que vous payez ces mêmes personnes aussi dafa bari ci biir société civile bi. ay Birahim Seck dafa bari ñoom dañ lay jox dossier. Uh-huh. bu ñuy xeex ak état dañ lay jox dossier. induire la en erreur. Uh-huh. parce que dañoo am ay ONG yoo xam ni ñooy capteur de fonds yi. parce que état du Sénégal balaa muy wax ci waxu homme politique yi parce que li tax affaire fonds Qatar yi man du ci wax. Mm-hmm. du ci attaque du ci wax dara ci Ousmane Sonko parce que ñun dañoo téye Ousmane Sonko ci loxo. mais nan ngay téye koo xam ne ci loxo nga jiiñ ko escroquerie ji jiiñ ko entreprise de terroriste jiiñ ko atteinte à la sûreté de l' mu nekk ci sa biir loxo. mais boo bu fekkente ne sa loxo la nekk yow yaa yor enquête bi yaa manque de respect les sénégalais la leen dafa am. ay lettre jot nay foofu mais moom mi ngeen téye chef d'inculpation yi ngeen ko jox yëpp yi ngeen ko teg yëpp mu nekk ci seen biir loxo bu fekkee da bëgg lu leer bu fekkee dafa am xaalis bu jóge fee mais moom ngeen di woo enquête ko auditionné ko sur le fond génnee dossier yooyu parce que bu dee loolu mu dangereux yooyu mënoon taal état ministre de la justice mooy génn porte-parole du gouvernement daan ne sur cette affaire kat lii ak lii ci gis mais doo jël benn soi-disant député mu dem ci ci ci assemblée nationale ci perchoir bi taxaw yëkkati kàddu yooyu mais Ousmane ci seen loxo nekk ci seen prisonnier ngeen def ko chef d'inculpation ba pare génn bëgg a wax ci loolu kon pour manquer de la parce que mu ngi seen loxo déjà su dee fonds yooyu dafa am su dee enquêtes yooyu am ngeen ci ay dossiers su dee loolu am ngeen si mais mu ngi ci seen loxo atte leen ko pour que beneen sénégalais dootul capter di fonds yooyu mais par rapport ak fonds am na fi fonds amu fi fonds yàgg na fi parce que li met du ndoy wax mooy parti du cotisation yi ñu lay wax bu cotisation yooyu bëlde la mais parti yi ak ONG yi li may wax parfois transitaires yi nga xam ñooy transiter xaalis yooyu pour que parti yi mën ci dund mooy ONG yi. ñooy mooy société civile yi nga gis ñuy xataraay yu nii nekk ci ñooy porteur valise yi ñooy organiser séminaires yi def leen ay consultants def leen ay consultants def leen ay chargés de programme parce que 2011 président Abdoulaye Wade bi ñu koy xeex. ex état yi ko mere woon yëpp philanthropie yi ko mere woon yëpp ñoo financé woon ñi nga xam ne ñoo nekkoon derrière M23 y avait des milliards loolu dama wax dama ne dañu war a élucider loolu Abdoulaye dañ koo tooñ def ko complot international jaar ci kaw ay ONG ak ay société civile fii ñu xeex ko jaar ci kaw ay journaliste ak ay borom télé jële fi Abdoulaye Wade mu taxaw ne dañ maa xeex complot international même xeex boobu lañ bëggoon indiwaat ci ci réunion Macky Sall bi donc société naa ko ñoom Demba leen di jox xaalis Birahim Seck nañu wax ñan ñoo koy jox xaalis Mayeni Johnson bi mu fi ñëwee def def BBC boobu mais ñan la jaar du ci opposant yi rek la jaar affaire gaz pétrole ak ak mine rek la la société civile boobu di waxtaane parce que ñu perte ONG yi nekk à l'extérieur di yore milliards yeeg fonds yi parce que loolu dégg naa état du Sénégal moom quatre-vingt-dix pour cent des yi dugg ci ONG yi jógewul ci état du Sénégal mais état du Sénégal moo war a taxaw réglementer loolu ñu xam ñooñu fu seen xaalis di jóge parce que bu ñuy xeex duñu jaar ci opposition bi duñu jaar ci chef de parti ñoom ñooy ñëw jaar loolooy ngay gis ñuy ñuy def nii kuréel ba pare def ko chargé de programme def ko ay programme yóbbu leen ci séminaire yi defal leen ay table ronde def leen ay conférencier def leen ay consultant ONG yi nekk fii biir Sénégal excepté Moundiaye Cissé ak euh, Babacar Ba forum justiciable bañ ñoo ko ba sax ñoom dañ leen jàppee ni sax bokkuñu société civile xam nga Moundiaye ñëpp xam nañu élection rek lay def ñëpp xam nañu élection la gëm Babacar Ba ñëpp xam nañu ne forum justiciable mais à part ñooñu ONG yeneen yi si nekk yëpp muy eh, mais ñaata yoon lañ fi retiré retiré seen i seen mais ONG demal nga xool seen train de vie kan moo mën a jël ay sièges di ko fay ay ay ay vingt millions dix millions ci corniche bi séminaire bu nekk ça coûte presque combien de millions da nga leen ci gis ñu tabax ci école da leen ci gis ñu tabax ci euh, centre de santé da nga leen ci gis ñu financé ci ay lañ ciy financé mooy activité démocratie activité activité pétrole léegi homme bi fi Mayeli Jenson ñëwee def def reportage boobu mais ñoom am d'affaires société civile ñoom ñëpp génn accompagner ko def ko star pourquoi jëluñu Cafard euh, libéré boobu. Canard enchaîné xaw ma ñëw def ko fi. dama ne problème mu Sénégal ONG yi la ak société civile boobu nga xam ni ñoom ñoo nekkoon fii depuis Wade ba léegi suñu maire Abdoulaye Wade dem rangé wu ci benn opposant di la